ilaha illallah lamp faal baabi muridina fal jaañ yaa tax ñu lamp faal baabi muridina fal mbégum jaam yaay seen borom doonu reer du reer mbégum jaam yaay seen borom lamb faal baabil muridiina seera faal yaa nu gindee Daaru Daaru Alim muy Daara 14 toolu Serigne Mouhamadou Mourtada moom Serigne Saliou maanaam ko ñaanal bu yàgg bi loolu te ànd biir waaw nag comme ni ko gisee moom day mel ni gars yi danoo danoo xaw a àll day sax muy taw feex lool kon nag mbooloo ñu tamit xaw dëgg yàlla waaw maam maam di sàkku ngërëmal sëriñ bu baax rek ci lii waaw ak mbégam am li moom day taw feex boo moom teewee ko rek moom dañ siy santaat bu baax a baax a baax waaw di waxaat jërëjëfati Serigne Saliou bu wér a wér a wér waaw ndax lii moom maam maam maam maam c'est pas donné à n'importe qui nga am chance bi maam du bëgg ñëw fi rek moom mooy mooy waral nga ñëw fi waaye ñu ngi koy sante Serigne Saliou bu baax baax a maam di ñaanal ñëpp rek maam ñi amoon yéene teew ak ak ñëpp rek maam suñu borom yokk xew li ñu gën di mën di jekku liggéey sëñ Mouhamadou Mourtada bii maam ba làq si ngërëmam bu baax a baax di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaw ci barke borom Tuubaa ndeysaan sant nañu bu baax bokk taalibe bi baax ñuy yebal ci tool yi ñuy ñëw di barkeelu ndax boo xoolee lii dafa daw yaram barke Serigne Touba loo xam ne nga koy def ay at da nga ñëw di fi am une semaine mbaa ay fan léegi ngay ñëw di fi am ay cinq jours ngay ñëw sax ba tool yi maanaam da koy liggéey avant quatre heures de temps bàcc nañ tool yi ba noppi yaa ngi dégg ba di ko jëri fi mu toll loolu li koy waral nag mooy mbooloo mi dañoo jox bopp sëriñ bi te ñu seen làmmiñ ndax ak murit kat dangay ngay wéy ci ndigal man jàpp naa ne fu sab sëriñ wootee war ngaa mën a bàyyi sa yitte yëpp bu la dara jotut yaa ngi dégg ndax yoonu murit jaayante lay doon waaw da ngay bàyyi dara def dara dangay xool da ngay xool mbooloo mi ci tool bi maanaam ay ndaw rek a fi ne ak sëriñ Touba te koo ci gis ku ne am na yitte yoo xam ne war nga ko mën a doxi waaye ku ci ne sëriñ bi da laa jaral loo xam ni moo tax nga teew tamit sëriñ bi ñi ñi bay tool bi ba mu agsi fii mun nañ ko liggéey ba mu set wecc te mun te te kenn te du fi ñëw waaye xëy na bëgg ñoo dimbali rek a tax mu woote ko pour ñu mun cee barkeellu làq ci ngërëmal sëriñ Tuubaa waaw ndax sëriñ Saliou Mbacke mi naanoon mi mi naanoon mi naanoon lii ba ko fi wax dëgg yàlla mate na lépp waaw te yërmandeem rek ak jëmmam rek lañuy gis ci sëriñ bi waaw loolu rek mooy mooy mooy mooy mooy ba tey kon nag dañuy ñaan yàlla suñu borom chaque année ñu koy gën a mën gën koo fekkee gën koo tal waaw yàlla defal ñu tawféex ba mbooloo miy ñëw ren chaque année sax day gën di yokk waaw parce que boo xoolee tool yi ñu ngi ñëw fii ay 7 heures waaw euh, waxtu waa ngi nii 10 heures 33 moo jot te tool yi maanaam kawe na lool wax dëgg yàlla sant la daal waaw ñu ngi gërëm tamit télévision bi nga xam si ni euh, euh, moo moo moo moo teew fii ci ci ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla suñu borom defal la ay tawfeex yoo tamit ba sa ba say ba say mbir gën a kawe salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mi borom digal faal kamal nga am nga nooru faal yow de yaay baabilon lo am nga nooru Mama Samba Cheikh Moustapha ana teew ci Xelkom ci mbégtam Serigne Saliou mi liggéeyal ko ndax maanaam dañoo ñëw pour barkeelu si tooli Serigne Saliou yi ànd ak suñuy jëwriñ ji waaw. ngeen jógee fan. ñu jógee ba Thiès ànd ak mbokki taalibe yi maanaam ñëw wane fulla ak fayda rek barkeelu si tool bi comme ni ko sëñ bi bëggee. fi ñëwaat fii tey fi liggéeyaate di sëñ Touba doo feex ak ndimbal la bu jugee ko ci sëñ Moutala bu sëñ Saliou na loolu dañ ko ci sant bu wéer a wéer a wéer la bu sëñ Moutala bu sëñ Saliou bu baax la bu baax la dañ moom mi ñu indiwaat fii ci tooli xel ko mii nii ñu fiy liggéey laatee Serigne Saliou Mbacké moom Serigne Touba waaw dëgg nañ nag dëgg nañ ndax bu gis di ñëw fii lu mat ay cinq bis di bàyyi ko fu ne di ñëw fii ci tool xel ko yi nga xam ne nii am mbégte la suuf su barkeel sii. ci ñëpp si tool yi xelkom bii. waaw ci tool suñu mutalaam suñu sariw. waaw ko. wéral cër yi ñaan suñ Seex Mbàkke suñu borom yàggal taxawaay bi ñaan njaboot suñ Saaliw yëpp suñu borom guddal seen fan suñ Tuubaa doon yaakaar nag ak suñ Saaliw suñ Mutalla ak suñ waa njaboot suñ Saaliw ñu ñaan tool yi képp ku fi yàlla suñu borom faj sa aajo suñu borom yàlla suñu borom seen fan ñu ngi ñaan waa télévision bi suñu média bi suñu borom yokk gën a egg ba fu média si média suñu Tuubaa yi àgg fa da nga mën a gën a mën a liggéey Serigne Touba bi ki ko moom ñëpp nag Seex Saaliw nga noo sa dem gi jaaxal na noo yow lan xamoon nga dem ba noo fu nuy jëlee ti mu dara adduna yaa ka mën a woor xamoo baax xamoo wëlër daw loo fi gis danga ko woor sow mi lekkaan amul soro ay way ku dee ti yar ba maata maat ci wet gu ne mat laa imaam ca saasu ne ngay xeeb jëfam ca naan du mbo muy tawfeex ju rëy kenn xamul